vote waruloon am parce que ñun dañuy tànn suñu candidat ñi nga xam ne ñoo woote vote bi ñoom ak man ak ñeneen à l' assemblée générale ñun ñoo tànn Serigne Sow ñoo dem këram ñaari yoon ba ñetti yoon mu nanguñu loolu xawma lu tax ñu dem di indi keneen pour jàkkarloo ak moom benn dem si vote vote aru warloon am mais Serigne lu mu nekkee démocrate un homme intègre un intellectuel il a mu dem ba mu demee man sax foofu bu ma eggee foofu la ñu ma wax man bokk naa si jury bi c'était du pilotage à vue c'était de l'improvisation bu ñu demee foofu euh, kii kii jël parole bi Mao mu ne léegi euh, parti bi ñun yëpp ñu ñoo ko bokk euh, comme yeneen dëkk lu ñu def dañ ko war a def mooy lan voté léegi. ñaari candidat ñu ngi nii ba pare mu ne Amadou wax Amadou bu mu waxee ba pare mooy le coordonnateur départemental mu ne nañu dem vote et puis vote bi sëriñ ñaari nit lañ ko may moom mi nga xam ne mu ngi am fukki fukki fukki kii fukki cellule ñaari nit lañ ko may moom war a voté keneen ki mooy Chérif Diop ñu cité cellules yi nga xam ne man xaw ma ko cellule palen 1 cellules yi yëpp palen palen noor palen 2 palen man yooyu xaw ma ko bu ñu waxee cellules yi ñaari président rek ñoo ñoo présenté wu ci cellules ñeneen ñi gisuñu ko léegi bu ma waxee jox leen si si kii jox leen candidat yi ñu wax ñu ne déedéet kenn du wax léegi le camp de camp camp shérif boobu lañu ñu bañ Serigne Sow boobu la ñu bañ ñu ne kon bu dee ñoom du ñu wax et puis li ngeen def du yoon on ne peut pas être juge munoo nekk euh, attikat ba pare nga far kon vote du am xale yi boobu la ñuy song kii bi ñu kii table yëpp euh, image ngeen yëpp waaw. léegi bi euh, vote bi yàqoo ndax mujj na vote mujj na am wala mujjul am. vote amul. vamul amul. boobu man boobu en tant que plénipotentiaire membre du comité exécutif membre du jury euh, plénipotentiaire chargé des élections témoin boobu laa def sama PV ma yónni ko fu ma fu ma ko war yónni. ñoom li ñu publier ne euh, am na benn paie finalement def nañ ko ba ñoom gagné nañ ndax loolu valable mais yow euh, Serigne Serigne Gueye boo boo jongantee ak nit mais yow da ngay voté ñaari président ñi dañu voté mais ñoom ñu ne Serigne zéro xanaa Serigne voté wul boppam y a vice vice de procédure donc fii gagné mënul ne ak nekk fu mu nekk nii ñu ngi déglu suñu kilifa yi au niveau de Dakar man yónni naa sama kayit en tant que responsable membre du jury et membre du comité exécutif assemblée générale bu ñu ko tabee si kër Chérif Diop bi nga xam ne ñu ne moom la ñu tànn comme euh, candidat quel paradoxe. foofu lañ ko defee. ku nga xam ne tey moom la ñuy moom moo jàkkaarloo ak Chérif kii Serigne Sow moom lañ ko defee assemblée nationale. de validation de sa la candidature de de Serigne si Chérif Diop lañ ko defee. ku nga xam ne tey moom moo jàkkaarloo ak euh, kii. mu nangu woon na résultat bi. hein mais nee la c'est à l'unanimité ñu ne sëriñ Sow yow la ñuy tànn yow ñu mel ni yow la ñu wuuti amuñu ko yow la ñu tànn be ñu yóbbu ko si Ousmane Sonko présenté ko man nii. lu ko indi xam naa ne dañu ñu nekk ñu bokkul si parti bi ñu nekk bitim réew ñu nekk non boo bitim réew ñu bokkul si parti bi nekk si dëkk bi. ñoom dañuy iñaan Serigne ñooy pousse ces gens là ah di di di changer d'avis par rapport euh, euh, choix bi nga xam ne moom la ñuy def premier euh, la première fois mais man duma ko nangu man li ma waxoon loolu laay wax tey loolu laay wax suba loolu laay wax gannaaw suba.